wa anfiqoo na ngeen dépassé dégg nga ci yoonu yàlla ci lu yàlla gërëm ci lan mimma jaxalakum ca la def na ko mustaxlafiina fii ngeen wutu ci mooy alal ji waaw yàlla moom moom alal ji waatoohum min maalillaahi waaye alal jooju nga xam ne moom la yàlla moom daf leen ci uutal ndeke yàlla kon ah, da ngay dégg diw yàlla may na ko alal may na ko alal déedéet yàlla mu ne mayewul ko daf la ci uutal rek ab diir rek nga cee nekk bu yàggee nga dem keneen ñëw jël waaw ab diir nga fay nekk bu yàggee nga dem keneen ñëw jël ko borom bi tabaraka wa taala nee na na ngeen joxe ci alal jooju te ngeen dépassé ko ci lu neex yàlla fi sabilillahi jihaad gi waaye gën naa yaatu jihaad ji mooy lépp looy joxe nga fexe seet foo koy dugal ni ñu la santee nga fàggu alal ji dagan noonu lañ la santee nga dépassé ko ci lu neex borom bi kon nag aminu billahi wa lii mooy sax leen ci gëm yàlla wa anfiqoo te ngeen di dépassé jëm ci lu neex borom bi tabaraka wa taala li leen yàlla may mooy lan ko mu mustaxlafina fii li leen yàlla uutal nga xam ne daf ko fi teg uutal leen ci ne aca aca aca mu ngóog yàgg-yàgg da nga ko fee bàyyi keneen jël ko lo eh, eh, eh, ki ko moom daal mooy ki sax te du jeex su ko defee loola nga fexe seet foo koy dépassé fu yàlla gërëm dégg fa lazina gaa ñi nga xam ne amanu gëm nañ minkum ci yéen jullit ñi wa anfaqu ñi nangoo joxe seen alal dégg nga ci lu neex yàlla ni ki Usmaan bun mi nga xam ne xare tëmb joxe na fa euh, dégg nga dinaar joxe na fa junnee gëlëm dégg nga joxe na fa junnee fas dégg nga ak ay jaasee gi lépp